yaakaar naa ku wax dundal suuf priorité bi defe naa jigéen ñi la ak jeunes yi ndax jigéen ñi ñoo gën a néew doole si suuf si kon ku am tuuti te doyaloo bu ñu la jàngalee nan na ngay def ba dundal sa suuf yaakaar naa ni yow moomu indil nañu la programme bu am solo beneen ba mooy ku wax dundal suuf wax tamit wàllu wér gi yaram ndax si microdose bi ak PPI bi wàññi nañu produit yi ñu doon def fi wàññi nañu sunu dépense ndax li ñuy utiliser ci engrais ak situation bi ñu nu indil système bi ñu nu indil wàññi na dépense yi nga xam ni moom lañ doon def ci suñu benn hectare ki la wàññil sa dépense nag bëgg na nga yokk sa rendement gis nañu ni sunu suuf bi dundaat na tey jii boo demoon ci tool yi nga xam ne defoon nañu fa PPI bi nga xool verdure bi génnaat nga xam ne suuf si. am na lu ñëw si moom lu nga xam ni dundalaat naka kon njariñ bi ñu si gis dafa bëri torop soo xoolee ci wàllu environnement sunu jur yi nga xam ni bu nu bayee ba pare dañu leen di dundal si paay bi nga xam ni moo génn si produit yi tamit feeñ na si ñoom kon ñun programme bi te daf ñu fekkoon si jafe-jafe ndax jafe-jafe bi mu nu fekkoon Covid bi daf fi jaar jigéen ñi bay maraîchage mënuñu jaay luuma amul dara amul seen ay revenu baissé baissé baissé ba métti ñu ñëw jàppale ñu ci 22 hectares yu nga xamni dañu nu former sur le terrain ànd ak ñun sur le terrain di def suivi bi suivre nañ bañ def application bi ni ñu wara def application bi évaluation jot ñu ñëw and ak ñun ñu récolter ñu évaluer ensemble gis résultat bi ba mën ko démultiplier ci yenen femmes ndax boo xoolee union des femmes mille vingt une femmes ñëpp mënuñu demandoo en campagne ñii dañuy dem campagne bii ñii dem campagne bi ci des mais dañu doon jóge ci dëkk bi di def onze kilomètres di ñëw di visite xool nan la ñuy liggéey pour que ñoom bu ñuy dem en campagne bii ñëw fekk déjà ñoom jël nañu seen ay disposition am nañu préparation am nañu information may remercier tamit ñu ñu doon booleel ñuy def suivi bi ndax nag madame Diop vraiment lu mu ngelaw ngelaw lu mu tàng-tàng day ñëw ànd ak ñun ci tool yi te diggante Ross Béthio ak suñu tool yi onze kilomètres la lay def day jël kaar yi fay deux cent wala quatre cent soo koy ñëw wàcc fekk nu ci biir tool yi programme bi daal lu ma ciy wax mooy dafa yéex a ñëw kon ñun dañuy wax programme bi nañu ko yaatal si femmes yi ak jeunes yi parce que femmes yi vraiment si bay ñom ñoo desoon gannaaw si jot souf biñu démé ba jot si souf si nak war nañu leen jappalé ba nga xamni dañu mëna sécuriser sen souf bi di si bay te suuf si du yàqu ndax souf du yokku té nit ñi dañu yokku am nañu ay doom té suñu doom yoy dañuy am ay doom kon souf si lu am dañu ko wara sam dundal ke ba kenn ku dem retraite ki la wara remplacer ci kër gi ñëw ci tool bi fekk fi tool bu baax bu nga xamni man naka bay benen bima beneen si gis suñu parcelle yi fofu nga xamni dafa xawone salé biñu ñëwé ci micro dose bi liggéey ci def si fumure vraiment xorom ci dafa wàññeeku kon gis nañu ci njëriñ yu bare ñu bëgg nak ñu gën approfondir information bi ak formation ñu jappalé ñu tamit gis na jangat nañu si repiquage xamna ñu ni repiquage lu am solo la lu am rendement la suñu ñu mëne jappalé ci matériel yu nga xam dañu ñu permettre buñu dé def 20 hectares 10 hectares yëm ñu def ko repiquage 10 hectares yi si ñu def ko semer à la volée té ñun dañu fa am ñaari formation ndax dañu def formation microdose ak PPE ba paré ñu def si wetam système paysan ñuy suivre ci système paysan bi di déllu ci xol PPE bi kon vraiment formation bu am solo la té bu fekkoon moom lañ doon doore sa ba nuy door bay dañuy wax ni daanu réussir suñu ay campagne boo ñëwee ci gombo bi xam nga jigéen ñi maraîchage bi moo leen di may xaalis ndax gombo bi bu amee un mois un mois et rek jigéen bi dana commencer di récolter li muy récolter dana ci dund dana ko may mu jàppale kër gi kon yooyu yëpp dafa bokk ci xeex ñàkk gi nga xam ni moom la jigéen ñi di dund kon projet bi ñaari saafara la ñetti saafara gis naa ko ci daañu préserver suñu suuf daañu yokk suñu wérgu yaram ndax daañu que produit pour nous a suñu ménage yi kon projet bi xaw ma si lu ma wax bu fekkoon yeneen sax ñoo interroger leen tamit fi wax daañu wax lu ko ëpp projet bi ndax dañ ko dund